ba loolu loolu moo tax seen rencontre ñoom ñaar nee naa la ce n'est pas dans le cadre protocolaire de l'État mmh. conjoint fu muy am dafay fekk ñaari état yi toog waxtaan fii ñaari ñaari chef d'état yi ñoo toog am contact Macron jàng Macron Macron jàng mm-hmm. si Bassirou Diomaye le président Bassirou yi fay xool caractère ah oui xool courtoisie c'était une manière de l'étudier xool ce qu'il a dans la tête wala en tant que comme personnalité da ko doon jàng pour xool pèse nu muy peser élan wu chef d'état am intelligence am xam fan lay toog dafa am beneen jàngat bu ñu ci war a am mhm. Bassirou président basiiru Diomaye Faye bi mu génnee Élysée tey kan la dem seeti le président Abdou Diouf ouais. donc yooyu yëpp ay jàngat. est loolu woon njëkkee loolu mu mu mu mu mu ko balaa moo dem. ma ne <laughs> li mu jëlee fële mën na ko yóbbu mun na ko yóbbu fii donc sur le plan diplomatie c'est rayonnant. mais mais comment comment comment comment analysez-vous euh, posture Bassirou Diomaye fay ak ak ak Emmanuel Macron waxtaan bi euh, liñ fa génnee maanaam est-ce que il a honoré le le Sénégal. mais le Sénégal est sorti grand de cette rencontre. regardez les attitudes c'est-à-dire une lecture physique mhm. une lecture technique de président Bassirou Diomaye bi ñu ko jël see si perron bi xam nga fan lañ ko jëlee si jardin bi lañ ko jëlee ça quoi si ja si si protocole euh, l'Élysée loolu dafa bokk c'est-à-dire rencontre off la du rencontre on mhm. donc am na leneen loo xam ne ñoom loolu la ñu kii dañu jàpp nag léegi ñoom ñaar li ñu waxtaan firnde bi fan lañ koy mën a amee bés bu rencontre officielle amee. mu nekk rencontre soit mu nekk visite de travail visite d'état yooyu su amee si ngay mën a xam quintessence su ñoom ñaar fi ñu waxoon xam nga Macron ñëpp dañu jàppoon ni xaritu euh, Macky Sall la. ñun ñëpp loolu lañ jàppoon mu ngi door a gis Bassirou Diomaye Faye le contact humain le contact physique dafay jàngat lu bëri mais fu mu nekk nii li ñu war a mën a jàpp si Macron mooy Macron n'a plus tout toutes les données par rapport à la France. parce que situation politique bi mu nekk dafa nekk da ko fragiliser dafa am déséquilibre ak situation politique